Euh, dem fële ca Paris. Mhm. li ko waral nag di ab euh, forum boo xamante ne nii moom moo war a am à Paris. Mhm. Euh, di forum mondial pour la souveraineté et l'innovation et l'innovation vaccinale. Mhm. donc forum boobu. Euh, war a am à Paris nekkaale occasion pour le président Bassirou Diomaye fay mm. wala nekk occasion si Emmanuel Macron ngir ñu mën a euh, gisee d'ailleurs euh, actuellement gis nañu discours bi nga xamante ne nii le président Bassirou Diomaye fay def na ko dinañ ci dellu si mm-hmm. et aussi tey jii ñaari président yi président wu Sénégal ak mm-hmm. président wu France ñoo war a déjeuner ensemble mu nekk mm-hmm. occasion boo xam ne dina permettre en tout cas ñu ñu ñu waxtaan ñoom ñaar ci ay point yu bëri réew yi mm-hmm. buñ ne euh, gisante diggante président Bassirou Diomaye Faye ak euh, Emmanuel Macron mm-hmm. dafa nekk jotaay boo xam ne ni euh, lu am solo la parce que tey voilà mm-hmm. li dox ci diggante Sénégal ak France defe naa jarul ma ko expliquer Sénégalais yi nañ ko ñu war cee waxtaan aujourd'hui bëri na ay points yoo xam ne nii parce que waaw suñu waxee wàllu souveraineté mbir mi ki muy njëkk a concerné France lay doon Eh, mbirub souveraineté boobu noonu defe naa liñ ci war a pas bu njëkk bi ñu ci war a dox mooy ci suñu diggante ak la France nga xam ne euh, daanaka ay entreprise ñoo nekk fii yu ci bëri au Sénégal mhm. euh, armée française ci biir réew mi mhm. moo ne francais fa yeneen ak yeneen mhm. bu ñu delloo si discours bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko la dernière fois defe naa bëri na point yoo xamante ne ni laal na ko et je pense que amut dara loo xam ne réeroo dina ci réeroo ak le président Bassirou Diomaye Faye ce même discours moo nar a doon euh, discours bu bu président euh, Bassirou Diomaye Faye mhm. ci digganteem ak Macron lan la ñu nar a waxtaanee durant déjeuner boobu doon na en tout cas des choses yu important mhm. d'ailleurs moom euh, le président Bassirou Diomaye fay jot na def discours am mhm. Euh, foofu ci ci forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale Bassirou Diomaye Faye actuellement en voyage en France pour participer au forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale en Afrique mm. organisé par Gavi l'alliance pour le vaccin a prononcé un discours devant le chef d'État et de gouvernement à Paris le 20 juin 2024. Ce déplacement constitue son premier voyage en dehors d'Afrique mm -hmm. depuis son élection le 2 avril 2024. Lors de son le président sénégalais a réitéré l'objectif de l'Afrique de parvenir à une souveraineté vaccinale. Il a souligné de cette ambition le continent, insistant sur le fait que euh, Afrique doit produire ses propres vaccins pour ne plus dépendre des importations extérieures. Le président a également rappelé le rôle crucial du Sénégal dans cette démarche. Le Sénégal est particulièrement bien placé pour contribuer à cet objectif grâce à son système vaccinal de qualité, illustré par l'excellence de l'Institut Pasteur de Dakar. mu nekk en tout cas. Mhm. discours bu am solo boo xam ne nii euh, def na ko fa mu mu muy jëm rek ci ci kanamu le président Emmanuel Macron. buñ ci jógee mhm. euh, ci la jota jotaay boobu war a am ne war a nekk jotaay boo xam ne du ñàkk ne dinañ ñëw dans les détails ci yu bëri yoo xam ne nii. Mhm. ñoom ñaar war nañ ko waxtaanee ci diggante ñaari réew yi. Mhm. Euh, mu doon lu am solo comme ni nga ko waxee Bassirou Diomaye Faye ak Emmanuel Macron. dañoo war a sëkk waxtaan la wax nga ko sànq lu ñu war a waxtaanee seen biir dana dana bëri. Mhm. ndax ku ci nekk di nga xool la nga xamante ne mooy njëriñ sa askan. mooy njëriñ sa réew. Mhm. Euh, ci euh, lu mu mënta doon fànn bu mu mënta doon euh, mu nekk tamit fàttali am na ci solo tamit ni ki Macron moom moo sàkku pour gisante ki nga xamante ne. moo di Bassirou Diomaye Faye muy wone rek ni ki Sénégal ak France yàgg nañ di lëkkaloo wante. mais ku mhm. ci nekk yaakaar naa da ngay xool sa intérêt dëkk. daan xool intérêt dëkkam waaye Sénégal bu njëkk moom euh, sarax la woon quoi. <laughs> mu ngi noonu daanaka dañ doon saraxe rek. déjà aujourd'hui fierté bi ngay am mm-hmm. depuis euh, boo gisee par exemple les images yi nga xam ne nii am na fële ca Paris euh, arrivé bu président bi avec sa femme euh, lu ci bëri et même sa façon de de s'habiller en France mm-hmm. je pense que c'est un message boo xam ne dafay lancer tout le temps lañu daan gis mooy soo daan dem en France mm-hmm. da ngay fexe voilà def costume comme comme <laughs> président Macron toog ci wetam mais je pense que c'est-à-dire image yu président Bassirou Diomaye Faye ci jotaay boobu rek am identité boo xam ne daf koy wane l'élection de de Bassirou Diomaye Faye mhm. ak ñëwam bi même à Paris mhm. démb rek maa ngi gis si seen ay médias mais depuis deux trois jours loolu moom mooy nekk actualité en France mhm. ñoom loolu la ñuy waxtaanee euh, président Bassirou Diomaye Faye ñëpp dégg nañ discours bi nga xam ne ñoom seen biir lool lañ doon waxtaanee dégg nañ discours bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko la dernière fois à l'UCAD bi fa Jean-Luc Mélenchon demee. ñoom ñëpp ils s'attendent ah ñu ngi bëgg a déglu lan la président Bassirou Diomaye Faye nar a indi. Mm-hmm. ndax relation France ak Sénégal daf fiy jaar am ay ñagas-ñagas. Mm-hmm. ndax mën nañu sauver relation boobu bu ñu koy sauver ci yan pilier la ñuy sukkandiku. loolu yëpp nekk na un débat depuis des jours en France mais soo gisee tey jii le président Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. teewam France franchement dina am benn benn fierté. Euh, boo boo ne ni da ko am si image yi nga xam ne yaa ngi koy gis. et même dans son discours cette bi nga xam ne nii. moom yàgg a wax euh, dina dina nekk une chose boo xam ne dafa dafa war a revenir parce que mm-hmm. euh, souveraineté dafa bokk ci terme clé yi nga xam ne nii le Pastef moom la moom la yàgg di wax. di mhm. séq ak ñi nga xam ne voilà ak ak ces jeune sénégalais. ba daanaka attirer seen attention donc loolu du ñàkk tey ci seen ay ci seen discours mënuñu nekk ci réew moo xamante ne nii. Mhm. jaar na ci colonisation waaye situation ba muy continuer di dund ba léegi kenn mënu ko. Euh, changer voilà c'est la même chose. Mhm. daanaka ci colonisation ngay ngay des. peut ci beneen xeetu forme colonisation. tey jii euh, dégg li Ousmane Sonko wax par rapport ak. Euh, armée française mhm. pour man ah, dafa def loolu am na loo xam ne rafetul ci réew réew bu bu bu souverain ñu naan la ay armée française ak ñëw yor benn camp militaire fii nii pour je sais pas quoi mais mhm. yooyu c'est du n'importe quoi te suñuy nit nekkal ñu fi waaw mais ñu am ay njiit yoo xamante ne dañ ko fi fekk bàyyi ko fi accepté ko moo tax euh, dafay soulager nit yi suñ déggee discours bi Ousmane Sonko def mhm. ak discours yi nga xam ne ni le président Bassirou Diomaye Faye jot na ko def mu nekkee à la tête du pays ak léegi et des mines def na ko ci ci ci mine yu Mako Sabadola. waaw fële en tout cas ca ca mhm. mu lay won rek. c'est-à-dire ni ni nga xam ne ni noonu la tubaab bi tegee loxoom. ci li nga xam ne moom mooy sunu ay ressources naturelles suñu moomin mhm. ci loo xam ne ñun ñoo si waroon di bénéficier wu léegi loolu nag il faut nga am président bu am fulaak fayda moo ci jotaay boobu noonu bu mhm. toogee ak Macron ne ko sëñ bi li mënatul dem waaw donc liñ ci war a def dëggantaan ñu def ko ci et mhm. puis voilà Sénégal mën a bénéficier ci li nga xam ne war na ko am léegi nag mbir mi du nekk rek mbirum extrémiste maanaam forcément dañuy couper le cordon ombilical entre le Sénégal et la France Euh, dafay doon mbir moo xamante ne nii euh, Sénégal li nga xamante ne nii moom mooy intérêt moom lay wëri ci bu fekkee ne France mën na fexe ba je pense que loolu ça va pas poser problème du ñàkk na feeg ci kanam mhm. euh, dinañ gën a am lu bëri loo xam ne xew na ci discours bi fa le président Diomaye di tenir ak li nga xam ne nii moom la le président Emmanuel Macron di di di wax mhm. mais li leer ba leer mooy problème mën maanaam jaxasoo mun mun mun na fa ñàkk am parce que li ngay ñëw di indaale en France le président Emmanuel Macron lui-même comprendre na ko mmh. mooy Afrique gu tey mmh. nekkatut Afrique bi amoon il quelque temps ci ginnaaw rawatina Sénégalu tey mmh. wute na ak Sénégal bi nga xam ne moom moo doon am sous euh, le président Macky Sall parce que gis nga gis nga récemment rek euh, <laughs> à travers RTS benn publication boo xamante ne dafa am xeetu manque de respect boo xam ne dafa yàgg ci suñu dëggante ak France ñu ngi Sénégal naka nga naka nga mën gisee un président euh, de la République ci ay ci ab article de presse ngay bind naan le le le président euh, Emmanuel Macron dina gisante ak le sénégalais Bassirou Diomaye Faye c'est-à-dire et cette ces pratiques là dafa yàgg du tey. xëy na tey nag la ñu am ñu am fulla ak fayda. pour le remettre à leur place. mais mm. loolu benn xeetu doxalina boo xam ne yàgg na. yàgg na ak ñoom mm, mooy nawloo wuñ ñu woon. <laughs> et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un président boo xam ne amul complexe amul complexe tubaab ak européen ak Macron ak keneen ak keneen. Mhm, et pour mhm. loolu c'est une chance pour nous. Mhm. si jéego yooyu la ñu war a dox mooy si jotaay bi ñu ngi siy xaar lu bëri loo xam ne nii. France war naa yem place am parce que cette cette vision paternaliste bi mu yàgg am par rapport vis bi vis de l'Afrique et particulièrement ci ci Sénégal mooy tout le temps ñoom ñoo ñu war a coiffer ñoom ñoo indi seen i entreprise xoolal tey réewub Sénégal du suñu courant du suñu ndox du du sunu tali du dara cest à amul dara lu ñu moom ba ci terre bi mujjee ñëw. ba ci yeneen ak yeneen. lu ñu soxla mais. tuyau tuyau bu yàqu tuyau bu yàqu au Sénégal on obligé ñu dem woowu ji ay nasaraan pour ñu ne defaral ñu ko. loolu du souveraineté. et je pense que li li li euh, askan wi rawatina cette jeunesse sénégalaise. gis ci ku mel ni Ousmane Sonko wala gis ci le président Bassirou Diomaye fay ba fal leen tey mooy. Hmm. cette souveraineté là dañ ko bëgg a téye ci sunu loxo. et on savait pertinemment que loolu du du ci Macky Sall lañ koy amee. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñi fi nekkoon candidat bëri nañu. Hmm. mais xam nañ ne souveraineté boobu ñu bëgg tey nekkul ci ñooñu lañ ko amee amuñu discours boobu amuñu taxawaay ci politique ils ont choisi ñi nga xam ne ni jàpp nañ ne souveraineté wu Sénégal mhm. euh, ñor na leen ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ne gëm nañu Sénégal mhm. et ñu ñu fal leen à la tête du pays donc loolu nekk na en tout cas loo xamante nii loolu la xaar ci ñoom et que voilà du ñàkk fii ci kanam euh, info yi wàcc mhm. dinañ am contenu euh, déjà discours bi président Bassirou Diomaye fay def disponible na donc ci kanam dinañ am ay ay retour par rapport ak waxtaan bi nga xam ne war na ko war ak le président Emmanuel Macron mu lu lu gën a yéeme askan bi ndax dañ ciy waxtaanee sax ah, moo di buñ gisee Bassirou Diomaye fay bu mu jëlee bopp réew Sénégal ba léegi ah, gis nañ ne mu ngi doxantu ci dëkk Afrique yi daal fa la daan doon dexu nemmeeku di waxtaan ak yi nitam mhm. ah, mu nekk lu njëkk Bassirou di daal di romb Afrique di dem biti réew nar fa gis ak ki nga xamante ne moo di Emmanuel Macron mhm. doon li nga xamante ne sénégalais yi bëri daal ñu ngi koy waxtaanee maanaam ñoom dañoo rafetlu initiative bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye ko bi mu toogee ba léegi dañoo gis ni dëkk Afrique yi la daan jéem a wër. di jéem a xamante ak ay ñoñam jéem a waxtaan ak ñoom. oui mi ngi noonu mais loolu c'est tout à fait normal. bala may dem ci ci ci doxandeem damay dem ci samay mbokk ba pare damay dem ci ñi ma gën a jege. malheureusement euh, ça jamais été le cas. mooy <laughs> da ngay jéggi ñi nga xam ne ñoom ñoo la gën a jege ñi nga xam ne ni tey yéen a bokk ci deret parce que au <laughs> delà de suñu frontières yi dox ci suñu diggante mais même peuple bi la mm-hmm. parce que tey peuple bi ngay fekk Sénégal moom ngay fekk feneen ak feneen mm-hmm. aujourd'hui da ngay gis au Sénégal nga am nga am tey jii euh, une communauté Peul nga dem hors du Sénégal nga fekk fa cette même communauté Peul la tey jii euh, bambara ni nekkee tey jii au Mali noonu la ñu nekkee au Sénégal cest à mm-hmm. na lu la nii dañ naan lii Sénégal la lii Mali la lii Guinée la sangam. Mhm. mais en réalité c'est un même peuple. te mhm. pour man loolu ces présidents là ils l'ont compris mooy li ma lay wax léegi ni la. dafa am loo xam ne discours bu ñu tenir la. Mhm. Euh, vis-à-vis de sénégalais ba sénégalais yi gëm loolu. parce que panafricanisme dafa nekk loo xam ne nii moo mën a génne euh, continent africain ci li mu nekk parce que. da ngay gis benn Sénégal boo xam ne moom dafay jàpp ne interlocuteur am France la war a doon. nga gis Mali par exemple dem ci France Côte d'Ivoire dem ci France doole jooju yëpp ñuy jël dem di joxe ji France xoolal tey France dëkk la boo xam ne mais si ressource réew mu réew mu ndool réew mu pauvre la amul daal ndool la fii la koy jëlee lan lan la am lu muy lekk fii la koy jëlee mais sunu sunu sunu or or Sénégal euh, yeneen ressources yi nekk ci biir réew mi yeneen ressources yi nekk Burkina yeneen ressources yi nekk feneen ak feneen mhm. mais loolu tey moom moo tabax France ba mu mel ni mel léegi malheureusement on avait des dirigeants yoo xam ne soit suñu àndee c'est parce que dañoo ànd ànd boo xam ne euh, ay marionnette France la ñu doon mooy lu mel ni kuréel gu mel ni CEDEAO mhm. mais kuréel goo xam ne dafay dajale des des dignes fils de de l'Afrique ñoo xamante ne dañu gëm seen ay réew malheureusement on n'a jamais eu cette chance loolu moo ñu yóbbu tey ci situation boo xam ne mhm. ñenn ñi ils ont ils ont dañu mujj dañu dañu euh, obligé dem jël pouvoir par les armes mhm. te cette situation bi moom moo jur loolu. mooy mm. dangay ngay gis un dirigeant boo xam ne dafay nekk ci réew. jël réew ma noot ko. Mm-hmm. ak la complicité de la France. Mm-hmm. récemment yaa ngi dégg Ousmane Sonko muy muy muy sànni xeer Macron sax naan euh, bi situation bu bu bu waar amee Sénégal waxuma la sax euh, Sénégal amul soutien wu France amul soutien u Union européenne mais pire le président Emmanuel Macron dafa dalal Macky Sall. di ko féliciter ci façon bi nga xam ne nii moom la gérer crise bi au Sénégal au mhm. moment où euh, ay nervi génn di rey ay nit au Sénégal au moment où ngay compter morts moom mhm. dafa ma Macky Sall féliciter ko mhm. pour man loolu yëpp dafa nekk des faits yoo xam ne mi ngi fii te mën nañ cee sukkandiku donc euh, tey jii il faut que rupture am rupture suñ ko waxee ñaar la bi jiitu man war moo tax Sénégal dama jàpp ne problème mu Sénégal yëpp ñaari mbir yooyu la bi jiitu mooy euh, ki nga xam ne nii moom moo teg loxoom ci li nga xam ne moom mooy sunu ay ressources ci suñu am am ci sunu ci sunu privé c'est-à-dire dafa dafa dafa étrangler Sénégal en quelque sorte il faut que loxo boobu nga mun koo teggi benn mu nekk benn ci ci ay jéego ñaareel bi mooy li des ci suñu biir parce que problème mu Sénégal ñaar yooyu la woon mooy li ëpp ci lu ñu am dañ ko jël jox ko ay doxandéem ñu koy jëfandikoo benn deuxièmement mooy li fi des sénégalais yi war ko bokk mais ay benn benn nit ñoom ñoo koy jël bokk ko seen biir ñaari problème yooyu moo amoon au Sénégal donc pour man ñaar yooyu mën nañ ko lijjanti bi jiitu mooy euh, li nga xam ne moom mooy inégalité yi amoon ak euh, càcc gi doon am loolu gis ngeen jéego yi nga xam ne ni le président Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy jéem mhm. depuis euh, mu nekk à la tête du pays mooy nga toog dégg ne littoral bi par exemple ay tani chantier yi fa doon am nga toog dégg chantier mbuurkaat nga xam ne ay quelques nit ñoo xam ne dañoo dem ba jàpp ne Sénégal moom seen moomeelu bopp la dañuy toog rek séddoo ay terrain séddoo suufu Sénégal def lu leen mm-hmm. neex pour mm-hmm. man mm-hmm. inégalité yooyu moom moo nekk tey enjeu waaye à part loolu li li nga xam ne nii moom moo ëpp solo par rapport ak rupture bi nga xam ne nii ñu ngi koy wax mooy fexe ba euh, li nga xamante ne ni Sénégal moom moo ko moom ñu delloo ko ci sénégalais yi parce que peut pas comprendre aussi un pays boo xam ne yow nee nañ la réew mi am na zircon am na phosphate am na calcaire am na pétrole am na lépp tout. on a tout récemment ñu ngi ñuy wax ay pétrole ak gaz. Mhm. mais réew moo xamante ne nii loolu yëpp mënu ci bénéficier wu ci loo xamante ne nii. mais euh, ay doxandeem chaque jour ma joxe exemple bi man ba léegi faaw ma dem man dem laaj man les français. comment est-ce possible yéen la France amut euh, ressource naturelle bu ñuy wax or. mais ngeen réussir nekk quatrième réserve d'or ci àdduna bi. naka la mën a nekkee ak fan ngeen jëlee or bi. ah seen doxalin toujours seen doxalin rek. et pourtant loolu ça leur permet tey jii ñun problème yi ñu am nii gis nga récemment ñu ne wàññi nañ dund gi euh, ba ba ba ba ba euh, am subvention bu 53 milliards boo xam ne dugal nañ ko ci mais récemment en France bi ñu demee ba tàmbalee am ay jafe-jafe dañoo dem tibb ji si seen or. pour mën a stabiliser waat li ne nii moom mooy seen marché. mi ngi noonu et loolu dafa nekk ay yoo xam ne ñun li nga xam ne ñun ñoo or bi ñun. à Kédougou ñun ñoo am. mënuñu ci njëriñoo dara mënuñu ci njëriñu. Mhm. soo demee laaj bijouterie Séné euh, Sénégal bi bijoutier Sénégal nga laaj ko ana or Sénégal mënu laa fu muy jaar. fu muy jaar vraiment question de souveraineté la loolu dafa bokk ci li nga xam ne nii moom la le président euh, de la République wara a lijjanti tey. ak les dirigeants français fexe ba mhm. li nga xamante ne nii moom mooy suñu souveraineté. Mhm. ñu mun ko am à 100 pour cent parce que euh, askanu Sénégal loolu la ñuy xaar en quelque sorte. moom le président de la République. am